amati mbégteeg bànneex di ànd ak yéen yéen ñu tawlu ci 5M TV Sénégal jërë ngeen dal lee nag euh, jàmm mbokk internet yu 5M TV ci chaîne chaîne bi nga xam ne saa bu nekk rek yéen a ngi fiy toppee lépp loo xam ne moo di xibaar. Euh, dañuy àddu rek euh, wax ci mbir yu doywaar yi nga xam ne jamono ji nag ñu ngi koy nemmeeku ci réew mi di senegal ginnaaw campagne électorale bi nga xam ne jamono ji ci la nekk tax rek ñu fi euh, nemmeeku ay violence yu baree bari ni ki démb rek convoi boo xam ne Ousmane Sonko la àndaloon foofee nga xam ne rek euh, moo di ca Saint-Louis dañu ko daal di attaqué waaye itam ñu gis ay vidéo yoo xam ne yu doy war la ay nit yoo xam ne rek yor nañ ay ngànnaay maanaam yor nañ li nga xam ne rek moo di ay jaas yi di ko dóor ay nit ba sax jot caa gaañ ay nit yoo xam ne rek. seen yoon euh, nekku ca mu nekk nag loo xam ne jamono jii euh, Sénégal yëpp ña ngi cay joxañ baaraamu tuuma ka nga xam ne rek moo di maire bu Ndakaaru di euh, Barthélémy Dias waaye sax ca mbir moomee ki nga xam ni moo di Ousmane Sonko yëkkati na ci ay kàddu waxoon ne ki nga xam ne rek euh, moo di euh, ministre de l' intérieur mu di sa Batacité nag euh, ki nga xam ne rek moo di Barthélémy Dias dafa yor ay ngànnaay maam daal dafa jël ay ngànnaay jox ko ay nervi yoo xam ne rek dañuy wàcc ci askan wi di leen jàpp di leen dóor di yàqate seeni alal. mu nekk nag loo xam ne kii di Ousmane ko moo ko daal di eh, xamle waaye nag eh, niki noonu tax nañu jàpp ñenn ci ñoo xam ne rek eh, àndoon nañ ak ki nga xam ne rek moo di Barthélemy Dias mu di ay garde corps yoo xam ne rek àndoon nañ ak moom moom mi nga xam ne rek moo di maire bu Ndakaaru nag niki tey jii nag. mbir yu naqari jamono ji nag lañ koy daal di teg ci kawam jamono ji nga xam ne Sénégal yëpp ñu ngi waajal li nga xam ne rek moo di élection yi ñi nga xam ne rek ñoo fare ci parti bi di Pastef ni ki tey ji daan nañuy dem foofee nga xam ne rek moo di ca këram ca Baobab ngir rek taxaw ca buntu këram wan ne ko ne ko Ousmane Sonko nag jamono ji moo téye réew mi di Sénégal tax tey ji nag ñu nemee ko fa mbooloo mu takk moo xam ne rek daan na ñuy wàcc ca buntu këram foofee nga xam ne rek moo di ca Baobab waaye nag tey ji Ousmane Sonko daan nay dem ca Touba itam ginnaaw ba mu fa nag daal nay dem foofe nga xam ne moo di ca Dakar Baobab tey jii nag mbooloo mu takku lañ fa daal di nemmeeku jamono ji nga xam ne ñu ngi wax ak yéen nag foofee nga xam ne rek moo di ca Dakar Baobab ña nga fa nemmeeku mbooloo mu takk moo xam ne rek daan nañuy gunge ki nga xam ne rek moo di Ousmane Sonko ànd ak moom ci li nga xam ne rek moo di caravane bi nga xam ne rek mi ngi koy daal di aman ginnaaw déclaration bi nga xam ne sax Sonko mi ngi wax ne rek dina ko daal di def si kanam tuuti mu nekk nag loo xam ne Sénégal yëpp ña ngi koy daal di xaar ndax Sonko day wax ci mbir meek wala itam dafay bàyyi lépp li nga xam ne rek nar na koo defoon foofee nga xam ne rek moo di ca Dakar ndax kat dafa waxoon ne dafay woote la nga xam ne rek moo di ab siga mitin wan ne ki nga xam ne moo di Barthélemy Dias moo moom Ndakaaru waaye nag moom loo xam ne Ousmane Sonko moo ko waxoon ni ki démb waaye nag tey jii gis nañ nag amagul benn mitin boo xam ne rek daan na am foofee xam ne rek moo di ca Dakar Baobab waaye nag jamono ji Ousmane Sonko daan nay dem foofee amal li nga xam ne rek moo di ab caravane boo xam ne jamono ji daan nay fees dell ak mbooloo ñoom ndaw yi nga xam ne rek ñoo ànd ak ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko tey jii nag daan nañuy wàcc ci terrain bi ànd ak moom daal di koy gunge foofee nga xam ne rek moo di ca Dakar ci caravane bi nga xam ne rek ma ngi koy daal di amal ñoom nag jamono ji daal ña nga yuuxaloo turu ki nga xam ne rek moo di Barthélemy Dias di ko wax ne Barthélemy Dias moomu Ndakaaru Sonko moomam Dakar Sonko mooy sa bàyyi mu nekk ay kàddu yoo xam ne ñoom ña ngi ko yëkkati actuellement jamono ji eh, di ko jëmee ci ki nga xam ne rek moo di maire bu Ndakaaru di Barthélemy Toye Dias mi nga xam ne jamono ji nag Sénégal yëpp moom la ñuy waxtaanee ci li nga xam ne rek daan nay xew ni ki démb mu nekk nag loo xam ne ku nekk rek ma ngi cay daal di wax di ko naxarloo ko ñaawlu loolu nag tax sax ki nga xam ne moo di amee Aminata Touré moom yëkkati ay kaddu jëm ca mbir moomee wax ne ki nga xam ne rek euh, moo di euh, Barthélemy Dias daal la mu def nag nekk na loo xam ne jaaduwul benn yoon bokkul ci politique mu nekk nag ay kaddu yoo xam ne ñu bëri ci ñi nga xam ne rek ñoo féete woon ci pouvoir bi daan nañ koy yëkkati moom nag jamono ji daal ma ngay naqarlu mbir yi nga xam ne rek daan nay am nit ki démb mu di ay nit yoo xam ne a gaañ te seen yoon nekkul ci nga xam ne rek ko doon doon def ñoom ñi xam ne rek fekk leen seen biir place door leen ay jaasi ba jamono ji nag nekk ci li nga xam ne rek moo di lalu hôpital yi mu nekk nag loo xam ne ñëpp daal ñu ngi koy naqarloo ko ñaawlu moom nag Mimi Touré jamono ji daal ma ngay naqarlu mbir moomee wax ne ki nga xam ne rek moo di Barthélémy Dias moom jamono ji la mu def nak nekk na loo xam ne ñaaw na trop actuellement daal jamono ji daal mbirum Barthélémy Dias jamono ji moo lëmbee réew mi di Sénégal